colonel parce que dañu yegg jamono boo xam si dafa mel ni anti modèle yi lañ gën wone wane. ah waaw ñi melul ni ñu war a sopp ñoom lañ gën a wane. Mhm. xam nga ñu université léegi dañ fa def benn réforme bu ñu tuddee LMD. Mhm. xam nga gars yi bu bëggee sabatu lu ñu wax. Hmm. lutte musique danse dañu lutte musique danse. Ah, lutte musique danse waaw. pour pour pour pour pour ñàkkal ko fay. Ah. non léegi ñan lañuy wone fii. Ah, waaw. ñan la wone comme ay nit ñu ñu war a roy. musiciens yi mbërsiens yi c'est ça bëri ak feccikat yi ak feccikat yi mhm. te loolu kon donc bu ma la déggee. c'est-à-dire nit ku ñuy gis ku ne nga nekk un homme public. Mhm. da nga war a mën a nekk bu ngeen ko téye ci poor bi médias yi duñ ci. royukaay ci sa tur moo tax ma sol sama tenue bi. Mhm. royukaay ci sa wax royukaay ci sa sutura ak sa trang. mu rawati nag jàngalekat yi. ndax man instituteur ma yoroon ma nekkee CM2 ba léegi. boo ma jàkkaarloo moom ma ko naan monsieur du ko tey. Hmm. waaw ah, waaw nga koy ndax impact bi enseignant di am ci kam yi jàngal. Hmm. mais léegi enseignant yi dañoo tënee tout jàng jàng jàng jàng. Hmm. waaw yenn saa société. <laughs> bu metti bu metti <laughs> waaw mais léegi li am ba des mooy. il faut qu'on en revienne à des tout à fait qui ont la société sénégalaise suñu buggee dem il faut ñu xam fu ñu jógee soo ko mën a jëm fu ñu xam. doo doo xam fi ku xamul sa ginnaaw mënoo xam sa kanam. la colonel ñu ngi lay gërëm. vraiment bu ñu sañoon yow rek yaay doon invité bi ñu waxtaan bu bari ci xeesal. parce que am na yuñ ko yoo xamante ne dañ ko siy def ñu bëgg mu leeral bala muy dem. parce que gis nañu souvent. en dehors de xet bi Pape Sidi di wax. am na dañuy wax ne extrait de fruits yu ñuy mélanger. def ko saabu wala diw ak ñi nga xam ne ñoom ñoo am problème mu peau te bëgguñu utiliser loo xamante ne moom moo leen di xeesal yow nga xam ne loolu mooy sa liggéey lan mooy solution. ak ñaar rek laay wax ba asaafara loolu benn bi waaw. amul benn xeesal ak noo ko mën a defee bu amul risque loolu amul. ak produit boo mën di def bu la rek le fait que nga dindi mélanine bi rek am na risque. am na risque ok. ñaareel bi. maa ngi répété cër yi suñu borom bind yëpp dara ci gën a mat li war a def ni mu war a mel ba liggéey bi mu war a liggéey moo koy defal boppam. Hmm. wala fi dañu ne booy dindi na nga dindi loo defoon. Hmm, très bien der bi suñu borom moo ko def bindal ko ni mu ko bindali hmm. nañ ko bàyyi ni mu ko bindee. nañ arrêté di ko importer. léegi nag yaakaar naa ne état bi. am na ci part de responsabilité bu mag. ah ñu xoolaat suñu réew léegi bala maa dem aussi da may may ma upp parce que. Mm-hmm. man daa ngi lekk faj ci laa nekk. Mm-hmm. du ma si jóge ci laay dee bugguma leneen. incha allah incha allah waaw. te bëgg naa bis ma fi jógee. yàlla na yeex am ñu man li ma man moo tax li ma mën ci jàng li maa koy def. mais yaakaar yaakaar nga sax xeex dina dina di nga gagné wala. gagné naa ba pare. gagné nga ba pare. ndax am na ñu ma jàngal ba ñu man li ma man te lu ma war a wax pour nit ñi am jàmm dinaa ko wax ak lu ma ci mën di fekk. waaw kon da ngay ragal état bi xoqatal la boo génnee naan war a woon wax loolu kenn mënu ko xoqatal non non kenn du kii soldat la kenn du ko xoqatal mais colonel colonel ñu ngi lay gërëm et puis di nga ñëwaat inchallah parce que il faut mais war a wax ci góor ñuy xeesala ah. am na góor ñuy xeesal xam nga góor ñi tax ñuy xeesal ah commerçant yi ñooy xeesal bu jigéen ñëw ñu la boo bëggee mel ni jëndal produit bi <laughs> non eh, tamit am na ci beneen milieu. am na ci artiste am na ci artiste yi ñuy xeesal leeral artiste yi xeesal yéen a leen di wane. bu ñu xeesalee ba pare lañ leen di wane ah, mi ngi lay nuyu Salif Faye Daaf. waaw waaw mi ngi lay nuyu mi ngi suivre. <laughs> yoo xam ne <laughs> Père Salif Faye Daaf la dégg nga de fu baax laa gisante moom wax na dëgg mun na. bis bi ñu dugal bi ñu jógee Màkka demoon na. mooy grand baa ngi. ñoo ko bokk